di sant buur bi tabaraka wa taala cant gi nag am na fu mu tàmbali waaye it amul fu mu yem waaye di julli ci sang-sang yi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ay njabootam di ñaanal ay saxaabaam ak képp ki xeeñ ci sunna di nuyu xalifa général yëpp bàyyi ñu kenn ñu ngi ziyaare ñëpp kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu ngi lay jox sa yéeguwaay di la ñaanal góor bi sàmm la taxawu la ak ju topp seen ginnaaw su ko defee suñu waxtaanu tey dañ koy cof ci dénkaane yi nga xam ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa xeet gi mu nekk juróomi point yoo xamante ni benn bu ci nekk jullit bi su dekkee baa nit ki su dekkee ëllëg yomal xiyaam juróom yi faw ñu laaj ko ko bu ci njëkk mooy sa ndaw bi ci lan nga ko passé balaa mag di ñëw bu ko ñaareel mooy sa wér ci leen nga ko passé balaa wéradi di ñëw bu ko ñetteel mooy sa temps ci leen nga ko passé balaa ñàkk temps di ñëw bu ko ñeenteel mooy sa wërsëg balaa yàlla wërsëgale ci leen nga ko def balaa ñàkk di ñëw bu ko juróomeel mooy sa dund gi ci leen nga ko passé balaa dee di ñëw kon nag ñu ngi taxawoon ci wàllu ndaw ndax ndaw lislaam daf kaa yitteel ndax dañuy wax ni nit ki su fekkee ni dafa jël ndawam dénk ko yàlla su nekkee mag yàlla sàmmal ko boppam kon ci sunu waxtaan bi paase ñu ngi indi ci ay point yoo xamante ni ndaw war na kaa bàyyi xel ba a jël sa ndaw rek féeyal ko ci géeju caaxaan moo xam lu nekk nag ci wàllu caaxaan ndax caaxaan dafa xaw a dafa xaw yaatu waaye lu ñuy moytuloo suñu bopp di ko moytuloo ndaw yu bari mooy yéendoo nalaw gontoo naan ataaya fanaanee fecc loolu nit ki mënu cee dëkk bëgg a tabax kër tax mu ni sabaa ba xab la xërëmi maanaam sa ndaw gii taxaw ci temb ndax ki nga mën a defar ëllëg sa mag kon bu ko jeexal ci caaxaan bu ko jeexal ci folklore waaye tey ñu indi ci benn point muy ndaw dafay nangoo liggéey ndaw dafay nangoo liggéey si fekkee ni danga toll ci njàng moo xam njàngu nasaraan la moo xam bu anglais la moo xam li mu mun a doon moo xam arab la wala yaa ngi ca daara ja xar ci sa tànk tubéy waaye foofu ne ci waajur yi di taxaw su la yàlla dënkee njaboot yàlla dénkiwu la njaboot ngir lekk naan kese déedéet soo bàyyee xel ci alquran chaque jour yàlla dafay wax ni dénk naa leen ay doom wala dénk naa leen alal waaye fitna la ci yéen maanaam fitna googu ni ñu koy déggee mooy dama leen ko jox daal di teg ay responsabilité ci yéen kon nag bu leen jël seen njaboot gi ni ko wolof di waxee njaboot gi njabootu kanaara la loolu wax ju yàqu la kanaara kanaara la xar-xar la waaye nit nit la waaw ni nga koy misaal bi ni nga koy déggee mooy benn sàmm benn yet mun na kaa sàmma euh, junni xar waaye nit ku ci nekk ak yatam kon yow mi waay jur bul na sama njaboot bi mën a lu ma leen dara war ngaa xam seen jàng war nga ciy topp war ngaa xam seen emploi du temps bis yu ñuy jàng ak bis yu ñu dul jàng weer bu ci nekk wala ñaari weer bu nekk war ngaa dem ci lycée bu muy jàngee nga waxtaan ak ña fa nekk ba xam mu ngi jàng ba xam mu ngi absenté mais yooyu yëpp léegi ñu baal ñu waaye suñu waajur yi daanaka bu njëkk daan nañ ko def mais léegi waaw su ko defee nag ñu naan la ci mënulu ma ko daraat daa dëgër bopp ak déedéet loolu du lay kilifa du taxawee noonu si fekkee tamit dafay liggéey bàyyi na njàngam mu ngi liggéey fexeel ba na ko utal métier bu baax teg ko ci ay loxo yu wóor su ko defee patron ba nga xam ni moo koy jàngal métier bu mu nekk ngay waxtaan ak moom di xool ba xam fan la liggéey bi toll ci moom waaye su fekkee ni yow da yóbbu ci atelier ba rek muy liggéey nga retour na sas ko courant wu kër gi te fekk na boobu mënagu ko jënd walla mënagu ko fay mën na fekk machine ci garage bi daal di jël dem jaay ndax la nga teel teg ci loosam la àttanu kon loolu it waaye jur yi ñu bàyyi ko xel kenn du wax ni njaboot gi ma leen dara amut audit da nga leen di yar xam ban heure la ñuy dugg ak ban heure la ñuy génn nga xoolit njaboot gi ñan lay àndal nga léeg-léeg rawatina jamono ji léeg-léeg nga teelu tëj sax sa buntu kër 22 heures dina fekk nga tëj sa buntu kër waaye ak li ci biir internet beeg yi cee xew yëpp fekk na yow sa njaboot gi moom génn na néeg bi bu yàgg waaw yaa jàppee ne mu ngi ci biir néeg bi waaye moom mu ngi ci leneen kon loolu dafay laaj waajur yi ñuy toog ak njaboot gi di waxtaan ak ñoom léegi nag ci point bi ñu ñëw muy wàllu liggéey ndaw dafay nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla maam Seydi Xaaji Malick si radiyallahu anhu dafa wax ni si fekkee ni gis nga nit kuy dem nga laaj ko mbokk fan nga jëm nee na su la waxulee ñaar yi woo ko nga yedd ko su la waxulee dama jug ngir jaamu ji yàlla jaamu yàlla nag yaatu na jaamu yàlla dox mbokk ma nga ca jaamu yàlla fekk ñaar ñu xuloo nga jubale leen ma nga ca lu am solo ngi noonu mbokk ndax jibril dafa mës waxtaan nag eh, yenent bi ne ko am na benn mbir wala am na benn yiw bu nekk ci sa biir xeet aka neexoon ñu génne ma ci kooru malaaka yi ni ma nekk ma nekk doomu aadama su boobaa loolu rek mooy nekk sama mission ci kaw suuf yenent bi na ko ah loolu de xanaa nag war naa rëy loolu lan la mu ne ko fekk ñaar ñu xuloo ngay dox ba ñu juboo moo tax yenent bi ne ñaari jullit ñu tongoo ñetti fante kenn nuyewul sa morom ki ci njëkk faatu ah <laughs> boobaa dina yéeme loolu ci yow kon nag daf la bëgg wax ni nit même su la tooñee ñëwal ba ci moom nga baal ko xàq kon su ko defee nag ndaw lii taxawaayam mooy mu nangoo liggéey nangoo sàmm boppam ndax ci liggéey boobu ci ngay mën a gañee sa wërsëg ci ngay am sa dinjite xam nga nga am soxla nga am soxla làmb sa poos nga xam ni lii xaalis bii yow yaa ko ñaq nga faj sa soxla boobu loolu dara dàq ko li gën a neexit mooy nit jóge fee ñëw ne man kat dama la soxla yëkkati problème am wax la ko nga génn si sa am-am def ko moo tax yii ci juróom yii ni yeneen bi dénkaane def cee dugg waaye yow sa am-am ci lan nga ko def loolu incha allah point la dinañ ci ñëw à part kon soo tolloo ci jàng métier nanga nga jàng métier te nga jub loolu moo lay dimbali. nga mun a fonder famille loolu moo lay dimbali soo demee ba yore soxna nga am loo ko yore ndaxit it soxna kenn du ko yore ci ay bëgg naa la rek maa la raw waaw loolu moom départ la rek bëgg naa la maa la raw départ la waaye soo leen demee ba tàmbalee nekk ci kër gi mi fanaan sa nekk yàlla bu ci doom am yeneen charge yi commencé teg sa kaw kooku su la fekkul ngay liggéey su la fekkul ngay am ci looy suturlu moo lay waral ngay di dóor li gars di wax dóor di dóor jàpp nit ñi di leen dóori marto waaw léeg nga gis koo xamante ni su solo nga ni macha allah waaye su waxee rek fekk na li mu lay wax lépp jubluwu ci lu dul nu mu la naxee ba jëli nekk ci yow kon nekk ndaw bu mu la teree liggéey bu mu la teree jaamu yàlla liggéey na buñ ko xeeb liggéey bu ñu ko xeeb. gis nga kii jël keesam daaj ko def ci soccu tàngal petit cola wër di ko jaay moo gën fopp nga sañse lu rafet dugg ci oto di tafuwaate ndax moom su tëddee dina nalaw lum ci lekk yàlla dana ko barkeel waaye yow mi jël sa yitte yépp def ko ci tafuwaate te gars yi dañ cee xarañ lool waaw ni ngay xëyee dem di liggéey di daana ji doole ñoom noonu la ñuy xëyee dem di sàcc ji kon nag moom yitte gi mu ko jaral yow na la jaral yitte ku ko raw fab kon ndaw du jeexal ci ay mbiram ci caaxaan liggéey boobu nag moo lay yóbbu ci nga mën a gérer sa famille nga mën a gérer sa famille ndax it si fekkee ni sàrt yi eh, sëy ci Sénégal dafa xaw a metti sëy ci senegal dafa xaw a métti rawatina nag su fekkee ne sa loxo jotul sa ginnaaw day daal di gën a métti kon li ñuy soññ suñu bopp di ko soññ suñu mbokk ndaw yi bu ñu xeeb benn métier bu ñu xeeb benn liggéey liggéey nu mu mën a toll na dagan rek te baax soo ci nekkee tuuti rek yàlla barkeel ko soo ci nekkee tuuti yàlla barkeel ko si fekkee nag def nga téyeer yàgg nga ci gis nga ni téyeer bi doxul bàyyil téyeer bi dem defe ji mécanicien bul am kersawu boobu soo yàggee ci mécanicien bi gis na mécanicien bi doxul bàyyil dem defe ji suudar doo ko def ñaar bi ñett te yàlla ibli wala ci bunt waaye moo gënit ngi wër di tappale ba jël sa temps yëpp def ko ci naar bi yaa ngi ci code 2 yi code 3 yi loolu dangay dem ba finalement te loolu sampul kër nag dëgg yàlla waaw koo nax ren mënoo ko nax déwén te yitte yépp nekk jaamu yàlla ak nangoo liggéey mooy tax soo nekkee mag nga noppaliku bari na mag ñuy gis nga yërëm leen mooy ba soo leen soo waxtaanee ak ñoom ñaare bañ nekkee ndaw seen ndaw yëpp dañ koo jeexal ci taaxuraan seen ndaw yëpp dañ koo jeexal ci foo seen ndaw yëpp dañ koo jeexal ci caaxaan waaye mag bu liggéey ci ndawam téye boppam yar njabootam su nekkee mag rek day feeñ ci moom su nekkee mag rek day feeñ moom soo ko gisee danga koy jox cër soo ko gisee danga koy respecté soo ko gisee da koy nawloo waaw waaye nekk mag su waxee baa mu jëf nga xam ni kii ba mu nekkee ndaw dafa jël ndawam jeexal ko ci caaxaan kon liggéey ci jaamu yàlla la bokk soo xoolee ci suñu réew mi soo ko xaajoon ñetti xaaj ñaari xaaj yépp ay ndaw lañ kon nag nañ liggéey soo ci munta def dara mais commerce mu ngi fi soo ñëwee eh, ñàqul ni mbedd ma nga dëkk am na waaye defal yàlla nga ñëw waxtaan ak moom ne ko ma dama amoon projet sàngam ak sàngam mu jàppale la ci loolu nga liggéey waaye bëgg jël yow sa dund gi yépp ndaw du teyal ndaw du teyal ndaw day nangoo ñaq ngir ëllëg lu mat a bàyyi xel la lu mat a bàyyi xel la dem ba nekk mag gis say moroom yépp ba nekk ndaw di liggéey yow nga nekk ndaw da ngay nalaw ba 10 heures 11 heures waaw léeg-léeg nga dajeeg yaay joo xamante ne moom lu neex doomam neex na ko moo lay jox ndékki jox la crédit soo buggee dem fenn mu yëkkati paas jox la kooku soo demee ba gisatoo ko la nga daan am amatoo ko soo moytul di nga def lu neexul yàlla kon ndaw dafay nangoo liggéey nangoo jaamu yàlla loolu moo nekkoon ci wàllu point yu ñu indi woon incha allah ci suñu waxtaan gii nag di ñëw di ñeen dugg ci célibataire yi waaw jeunes yi nga xam ne ñoom it ñu ngi liggéey fa tabarakallahu lànk bañ a takk jabar waaw loolu it incha allah di ñeen ci ñëw ndax am na ci loo xamante ne si sa ndaw rek gis nga yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam de vingt cinq la takkee soxna nee na vingt cinq ans nag soo ko jàllee leneen loo ci teg rek pertement la léegi da ngay gis ku dem ba làq 40 ans soo waxee mën naa la non saa waaye des na ba ci kanam dafa teel te 40 yi moom mu ngi sa biir poos nga ni dafa teel waaw loolu incha allah ci suñu waxtaan yii di ñëw ci kàttanu yàlla di dinañ ci ñëw ngeen baal ñu xaq li ci jub ci buur bi la tabaraka wa taala li ci dëngit seen mbokku taalibe ci la ñu ngi leen di baalu xaq bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu